salaamaaleykum mbokku internetu Dakar Midi ñu ngi am mbégte ak kontaante di dalal ki nga xamante ni tey naa la

boppam bu baax euh, yaak ki nga àndal di Seydina Ousmane Cissokho ñaan suñu boroom sàmmal leen boppam di la fay bu baax di nuyu internet yi di nuyu yëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullah sallallahu ala muhammad jërëjëf. lan moo indi tur Modou Moukabaro bi. waaw Modou Moukabaro Moukabaro bi mooy Aboubacrine Siddiq doomi Serigne Ibrahima Mbacké Ndar doomi maam Cheikh Anta euh, doomi euh, rakki Serigne Touba. muy Serigne Babacar Mbacké Siddiqul Moukabaro muy sama Serigne maa koy ziar di ko ñaanal gudd fan. sunu borom yokk ay xéwalam bu baax guddal fan yi bu baax loolu moo andi du andi mu kàbbu ndax ci taaw ci incha allah. tey lan ban moo motivé ba nga dugg ci li nga xamante mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa way yonent bi mu mu dugg ci bi may jàngi alfalaax ci di di jàng taarixu Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. Euh, di ko wayantu daf ma neex booba buñ ñu mosaan jàngal dañuy jàng ay tala al mm-hmm. fois ñu àndul yeneen way ay diinu lana yooyu nag moom may dem di ko di ko wayantu ko wayantu ba xam ne affaire daal ñëw ci man may way neex ma lool ma di ko tàgg daal du tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la ma animé daal bi may jàngee xarakatul falaax ci la ma yooyu duggee daal mais maa ngi ko commencé euh, ci ay ay ay ay deux mille onze euh, deux mille deux mille laa commencé di dugg di way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. tey bu ñu mënoon wax ne kan mooy Modou Macabro tey ci li nga xamante ne tey mooy comportement ci biir bani aadama ak comportement am ci biir li nga xam mooy tagg yonent bi waaw euh, Modou Moukabaro <laughs> kenn la koo xam ne macha allah rabbi sant yàlla bon il est serviable di tey jii yow boo ma wowoon fenn sax ne ma damaa bëgg nga ñëw woyal ma fi yonent bi mm-hmm. damay ñëw parce que man way yonent bi defuma ko pour di ci am xaalis dama koy def parce que dama ci bëgg jaamu yàlla mm-hmm. su ma bëggee xaalis damay dem liggéey mais way yonent bi ma dama ko def jaamu yàlla laa ko jàppee mm-hmm. voilà voilà te it moo tax du ma dem fu ma woowul du ma dem fu ma woowul du ma du jàng foo xam ne kenn xamuma fa daal waaw foo foo gis Modou Moukabaro rek ça veut dañ ko fa woo mu xam fa kenn koo xam ne moo ñëw moo ñëw ci moom ne bu ma sañoon nga ñëw woyal ma yonent moo tax may dem ci yooyu mais du dem programme bu ma woowul du ma dem ci foo xam ne xamuñu ma fa ñëw taxaw di woy yonent parce que yonent bi dafa am valeur yonent bi dafa di koo xam ni nekkul da koy yor di ko woyantu rek maanaam ngeen nga di pasare sa pasar pasare sa bopp danga war a am dignité am personnalité xam ki nga yor mooy sangu-sang yi ki gën sa ndey gën sa baay gën say maam gën loo mën a am ci àdduna gën say sëriñ lépp kooku boo yoree di ko woy macha allahu rabbi borom xam-xam dañuy wax ni boo ko fentelee woy sax sa yàpp yaram araam na safara ndax boo jullee ci moom benn yoon yàlla def ci yow fukki yoon. moo julli ci moom fukk yàlla def ci yow téeméer. boo jullee ci moom téeméer yàlla def ci yow junni te ku junni julli ci moom junni yoon sa yàpp yaram araam na saf kenn mën na su laa taxal kon kooku afa am valeur boo xam ne waroo dem ci ay ngénte wala ay xew rek taxaw kenn woowu la fa rek ngay taxaw di woy yonent bi ñu koy def nag bon xëy na am ñu raison yu koy def mooy yenn tàggatu yonent bi bu ma sañoon yooyu duñ ko def ndax tagg yonent bi nekkul fu ñu la woowul rek nga dem taxaw di way di ñàkkal sa bopp personnalité ñu la may ñoog yooyu man su may woy yonent bi kenn du ma ne may ma wallaay yooyu daal moo tax daal Modou mu kàbbaroo côté boobu moom. mën naa nag kenn du nekk ci bâche. kenn du nekk fenn mbaa may dox sax di way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw sallallahu alayhi ci kaw loolu ci laay dugg yow ci li nga xamante ni tey muy kooku moom it ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gën ñun ñëpp mais tey ñu gis am na nit ñoo ne ku ci mel ne tey boo xoolee président France bi fi defoon communication Macron ñi nga xamante di ko topp di ko caricaturer tey yoon noonu gisee loolu en tant que takkatu yéen di waaw métti na képp kuy jullit ndax tey jii l'islam nekk ci jafe-jafe nga nga nga bég dafa am mbégte ah yow nga nga nga nga ñàkk bégadi ah dafa bokk ci mandarga yi naa ñu laal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee ñëpp jóg amul poche bu te boo xoolee boo xoolee li ñu wax ni maanaam ci yoonu murit yoonu tijaan laayeen xaadar ñaseen salsalu yi ibaadu yi ñi nga xam ne bokk nu benn tarixe ñëpp jóg nañu parce que ki nu laal est-ce boo ko laalee rek maanaam dangay ngay ñoo xam ni maanaam kooku jaral na leen jaay seen bakkan moo leen jaral lu ne moo tax euh, Macron dama ko xaw a yërëm tuuti parce que xamul ku yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ko xamoon du kooku dee su koy laal yàlla ci boppam mu jël défense am jël défense am moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ma ko protégel boppam sunu borom ma ko euh, def sunu borom daa jël ci moom defar ko moom moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne maakaana Muhammad aba ahadin la wax min rijalikum walakin na rasulullahi kon nag kooku yàlla noppi na ci moom démb tey soogu ñëw pour wax leen ne yàlla li tax fi fi nga xam ne moom yeneent bi yàlla dafa def différence parce que ashadu an laa ilaha illallah ak jumaa joo mën a dem wa ashadu anna muhammad rasulullah nga ci teg doo ci teg beneen ashadu na diw sama papa wala sama maam yonent bi ko teg yàlla moo lay wan ni di nga protéger bi ñu protégé sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni mag ñi fi woon ci réew mi yépp li ñu am lépp nu ngi ko amee ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag ñi fi nekk ñëpp amuñoon benn option amuñoon benn euh, yitte lu dul di way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que dañoo xamoon ki mu doon yàlla bañ ñu ko ba jëmmam ak suñuy jëmm bokkul mosul laal parfum te saa yu toogee ñaq bi parfum bi day gill ci moom raasuhu dahmun shahruhu layyinun da ngay gis moom yonent bi amul woon takkandeer su lay ree sax da gis bëñ yi ni ni étoile bi di dàqante ci diggante bëñ yi taar gi mu taaroon amul ku ko mës a taaru ci àdduna te kenn du ko taaru keroog yomal xiyaam lépp lu am yàlla mu ngi ko amalee ci dara darajey Seydina Muhammad keroog tamit yàlla moom lay njëkk dekkal balaa moo dekkil kenn moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax kooku kenn la koo xam ne nii yàlla defaree ay yéenam yàlla defaree jëmmam nga xam ne tey jii amul kenn koo xam ne yaa ngi gis sa kanam di gis sa ginnaaw moom la ko yàlla defal koo xam ne amoo taxandeer moom Seydina Muhammad di waxal naan ko njool màkk fi mu taxaw fu ne moom moo fay sut yam mënoo ko natable mënoo ne tubaab la wala arab la wala kii dafa dafa yéeme moom ni ko yàlla defaree moo tax nag moo tax Serigne Touba wax ni nuurun azimun xat yaraa bihi xusóoran xaysara man kaana fi umul xuraa màkkate xeyrul ulumi sidaaj malik ne wa innahu is arada allahu abana min nuuri nuuru nabil alami cheikh abdou xaadir jeylaali fa jaddi rasulullahi taaha muhammadu ana abdou xaadar cheikh mu kullu tarixati cheikh na cheikh saadula bi innal muraada min ijaadu xalqi ijaadu ahmada li fatxirati akramuhu mantu sillu xarraawu wa mantu xillu xabraawu alal marati bi suudu zati tafaddon li seydi sadati Lamartine si la grandeur du dessein la petitesse l'immensité font les trois mesures du génie de mu ne Muhammad Rasulullah plus qu'un homme la wax mm-hmm. waaye moins qu'un dieu qui osera véritablement comparer l'histoire moderne à Seyyiduna Muhammad moo tax kooku kenn du moom jërëjëf si Modou mu kabaro kàddu yi am na solo lool waaw ñu gën a nekkaat ci li nga xamante ne ni tey yëngu-yëngu bi bari na ci dëkk bi ndaw ñaa ngi dee rek ci géej gi mm-hmm. ngir lan wuti dërëm mm-hmm. tey ñu lañ gisee loolu waaw metti na ndax kenn du wax ni euh, loolu nit dana koy rafetlu waaye nag inna allaha maa sabirin yàlla dafay ànd ak ñii di muñ dañu mm-hmm. delluwaat ci yonent bi maanaam lañuy wuti ji ci nasaraan yi di ko ci uh, tugal metti na torop ndaw lu jël kursam mm-hmm. dëkk mal Seydina Muhammad di julli ci moom donc doo torox doo am lu la jaaxal mm-hmm. loolu moo koy jox ndaw ñi da koy jox ndaw ñi àddee di julli ci yonent bi rek di wax sallallahu ala muhammad yàlla dana lay dottil ay xéewal doo soxla sax di dem ay ay Europe ak yooyu bay jël ay gaal doo xam fu xéewal du jógee loolu laal yàlla barkeel ka waaye danoon ne ci réew moo xam ne maanaam mooy gi da cee bari xam nga yonent bi booy booy booy booy booy booy julli ci moom mbaa ngay wax ci moom yàlla da lay dottil ay xéwal waaye nag bu xéewal di ñëw jigéen ñi dañ ciy bokkaale waaye da ngay fexe nag ba di leen éviter waaye boo leen éviter yow doo soxlaal nit ku dem Europe dara ngir yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax loolu metti na trop bon ni ndaw yi di jël gaal ngir ñoom idée bi ñu am mooy dem Europe tekki ñëw dimbali seen waajur. Mhm. te dem Europe moom taxul nit tekki ndax nit def na Europe quarante ans wala cinquante ans tekkiwu fa dara nit toog fii ci réew mi gën a tekki ki nekk Europe mhm. affaire yu jom la li Serigne Touba ne yaa ayyuha sibyaanu mu ne laa tastaxilu anil huda la wax yow mi nga xam ne yéen yow yooyu yeneen ndaw ñi mhm. bu leen yittewul dul aw njub mu ne nag istaxilu bi xifzi wa tilaawa di leen yittewoo ci jàng ak watu mu ne nag wàccani bu majalisa saxaawa moytu leen jotaay waay texe di te moo jaay majalisa saxaawa gi dafay bari torop torop torop torop torop ci wàllu maanaam jigéen ñi ci wàllu euh, boîte de yi ci wàllu maanaam yi nga xam ni mooy yàlla gi ci réew mi ci wàllu ñi nga xam ni dañuy nekk góor transformer bopp ci ci ci ñoo xam ne ay jigéen yoo xam ne dañuy séyante seen biir ay góor yoo xam ne dañuy séyante seen biir loolu bu amee rek jikko yi dañoo war a delluwaat ca mbañaxaan ma waaw dañoo war a delluwaat fi nga xam ne mooy source ba la ñu fi mag ñi bàyyi woon bu ñu jéggee bu ñu fi jéggee alquran jéggee fi li nga xam ne mooy sunna sayyiduna muhammad leneen lu ñu teg suñu tànk du baax keroog bañ fi dugalee droit de l'homme dugal fi droit de xam nga de femme ak loolu ci la tubaab yi bëgg andil jikko yoo xam ne day xaw a doy waar trop moo tax yooyu da ciy am solo ñu ñu tàggati suñu doom ci wàllu alquran yonent bi sallallahu alayhi na wax ni ku yar sa doom bu jigéen ci diine lislaam boo boo génnee àdduna yéen ñaar yeneen àndandoo duggandoo àjjana kon nag nga xam ne jigéen dafa am solo te lu bu société baaxee jigéen ñee ko baaxal waaye bu bu xawee safaanu rek ñoom dañ ci am wàll ndax yooyu dafa toog ak saxaaba yi ne àdduna mataa un àdduna njaay la mu ne ko xayru mataiha saaba yi na tekk mu ne njaay bi gën ci njaay mu ne almaratu saaliha mooy jigéen ju baax kon nag jigéen dafa am solo ci société société boo xam ne danga war a am personnalité am dignité ci sa bopp ba a bazarder ci sa bopp ba parce que yàlla jigéen ñi la jël wàlliw dugal seen biir ñoo ànd nit ñu baax ni kon magasin la boo xam ne dafa war a am dignité am personnalité ci ci ci boppam ñoom bu bu bu bu société baaxee ñoom am nañ ci part de mais léegi jamono doy na waar doy waar joo xam ne xaalis yàq na lu baree bari bari bari ci réew mi ndax ku nekk defe na ni boo ko amul rek tekki woo ci ci ci ci ci réew mi moo tax yàlla na nu yàlla jàppale xale yi nga xam ne ñoo dem ci géej gi ñu ci génn àdduna ñu leen di masaw seeni waajur te di leen ñaanal yàlla na leen yàlla wane léegi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag am idée bi nañu toog fii gëm seen bopp tey liggéey tey julli ci yonent bi amul secret julli ci yonent bi del def julli ci yonent bi dara du la jomm ci àdduna xiiwar yi dafay ñëw wallahi alazim doo xam fan lay jóge del jël sa kurus mbaa foo toog di julli ci Seydunaa Muhammad maanaam bunt boo laal rek danga naan déedéet suñu borom du koy ubbi waaye nag yooyu boo koy def dafay fekk ni maanaam bu la jigéen ñi dëgmalee rek. Mm-hmm. bul bul fexeel ba bul ci bul ci bul ci bul ci kiiw ak ñoom. ñu jeexale ci li nga xamante ne tey mooy jour Sénégal boobu di Pape Bouba Diop yàlla dafa mu daal di décédé ñu di ko ñaanal yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla suuf woyof ci kaw di ko yàlla Sénégal yëpp tey ban message nga mën a jàll ci ki nga xamante mooy Pape Bouba Diop 2002 ñu bari seetaan nañ ko. ndeysaan mu bégaloon ñu. ñun ñëpp ndeysaan Pape Bouba ñu ngi fàttaliku bi El Hadj macha allah euh, di di di di dribbler mm-hmm. Emmanuel Petit xaw ma leen koy wax ndeysaan ak Evra ndeysaan euh, muy dem di dóor bal bi pa buba dem bal bi dal ci Barthez mu ñëw ci moom mu dugal ko mu doon fierté bégal boobu mu bégaloon Sénégal yëpp muy man mu yow ak keneen ak keneen ñëpp jubilé woon ñëpp te bégal boobu mu ñu bégaloon ñoo ngi ñaan ba Sénégal tey jii euh, daan France ci benn bii ci dara te moom moo dugal bii bi ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla bégalee ci jannatul daarul xaraar yàlla na ko yàlla bégalee ci jannatul si yàlla na ko ay euh, yàlla na leen dëddoo ci jàmm ay famem te bu demee ci yàlla na giseeg yonent bi man ku may ñaanal niiw bu may ñaanal rek dama lay ñaan yàlla na nga giseeg Sayyiduna Muhammad ndaala ndax boo dekkee giseek yonent bi rek maanaam say mbir yëpp ay baax daal waaw te yàlla na ko yàlla defal mosuñu ko dégg nag ci dara Pape Bouba kenn mosu koo dégg amoon na yar mhm. amoon na teggin nit ku dal la woon mhm. mosoo dégg ni Pape Bouba mu ngi woon ci boîte bi wala mu nekk fee wala nii wala dugg na fi génn fi mhm. bon jàpp na ñàmbra yem ci soxnaam macha allah rabbi ci luñ ko xamal Hmm, macha allah rabbi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sàmm. fee mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge yàlla na àggalee ndawam ca jannatul firdawsi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def maa ngi ziyaaraat soppe yi. waaw kàddu gu mujj gi di ziyaar soppe yi. yàlla na leen yàlla sàmm. yàlla na yàlla defal tawféex di nuyu ñi nga xam ne ñëpp rek. ñoo ñooy jàppale Modou Moukabarou. ci ci ci ci ci ay ci ay ci ay kilibam. ci ay bisam di ko di ko conseiller di ko ñaanal yàlla na leen yàlla sàmm di ñaanal suñuy waajur suñu borom sàmmal leen boppam Bakary Camara ak euh, Sibo Dianké di ñaanal euh, soxna euh, madame Fall ak Cheikh ma Tidiane Fall muy suñu chef de quartier ñu nit ñu baax di beral nuyoo spécial koo xam ne nag bon muy derkele gi ñu nekk muy DG Port Aboubacar Sadikh Bey muy ku baax di ku yaarami di koo xam ne daf ñuy waxuma jàppale bi mu ñuy jàppale rek mais conseil bi mu ñuy conseil fi ñuy teg suñu tànk gis nañ ko téye ñu comme ay doomam téye ñu comme jarbaatam ndax daf noo bëggal boppam ak soxnaam madame euh, Bey euh, nday nday ko Ndiaye yàlla na yàlla sàmm yàlla defal leen tawféex du nuyuwaale sama xarit Assane Bey ak waa kër gi yëpp ñoom mosaa Moussa Bey ma kenn di ñaan suñu borom defal leen tawféex yokk seen i di ziar waa Derkele jëppal xaar yàlla Grand Yoff Liberté 6 ak Sénégal yëpp ak soppe yëpp di leen jox rendez mois de mars incha allah fii ci CICES euh, la nuit du prophète bi passé kii bi moo ko yàkkoon coronavirus bi mais bii di ñëw incha allah Dakar midi wax lañ bëgg jox mu couvrir ko Dakar midi macha allah nga xam ne moom lépp may leer nga xam ne midi pile lépp leer bu njëkk ba ndeysaan yi wax ni gars yi nañ koy bàyyi xel di ko déglu bu baax a baax ndax ay information yu fiable lay joxe ay information loo xam da leen di jaral lu ne ñu dem ba ca source ba dem xool lan moo kii bi ñu génnee ko nekkuñu ay journaliste voya voya ay professionnel la fa nekk yàlla na leen yàlla sàmm yàlla defal leen tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.